waaye man yàqu naa waaye ay waay man yàqu naa waaye ay waay man yàqu naa waaye waaye

Matarli Bougane Gueye Dany ginnaaw bi fa huissier ñëwee woon ba defoon constat ci Matarli jàppale ni que daal kii di waa impôt maanaam na ñu lépp loo xamante ni maanaam dañu waroon saisir ay matérielu Bougane Gueye Dany ginnaaw bu mu amee ay négociation bi nga xamante ni kii moo ko jiite woon di Mamadou Ibra Kane di euh, président CDEPS maanaam conseil euh, des diffuseurs de presse et éditeurs de presse maanaam bu mu demee négocier ak waa inspection et domaine ba bu suñu foofu nag ginnaaw bi ñu fa jógee nee na daal jamono jii ñu toll nañu jàpp ni que kii di impôt et domaine gelé na lépp loo xamante ni demoon na ci ay entreprise de presse suite à une médiation boo xamante ni conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal kii Mamadou Ibra Kane jiite ko def na daal en suspense suspense nag suñu leen ko waxee du càggin ka teggi nañu seen tànk waaye bàyyiwuñu dara lenn daal la ñu wax na buggaan def benn délégation mbaa mu ñëw négocier ak ñoom def benn moratoire xool naka lay fayee li mu leen yoreel muy redressement fiscal yi nga xamante ni bañoon na ko waaye mujj gi mujj na ko nangu yaakaar naa ni daal li mu mujj nangu daal su ko njëkkee woon coow du egsi fii yëpp maanaam nee naa leen Sénégal dëkku négociation la lépp lu fi am rek da ngay dem waxtaane ko waaye du sotti te gis ngeen coow li ci amoon coow lu mu jur incident yu mu jur mujjeewul fenn lu dul ci négociation yaakaaroon naa ni ñi njëkkee ko moo gënoon jàppale ni que daal waa inspection et domaine daal jàpp loo xamante ni daal jëm na ci décision boo xamante ni jëloon nañ ko pour saisir matériel des médias bi euh, vendredi bi ñu génn muy ñaar fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre foofu la amoon daal benn rencontre boo xamante ni kii di Mamadou Ibra Kane defoon na ko ñu joxaat ko encore képp koo xamante ni entreprise de presse nga nekk fii ci Sénégal waxul des médias rek da nga plan su yeboo na ñëw foofu impôt et domaine ngeen xool naka ngeen koy négocier ak ban moratoire lañ lay defal nga xool naka nga koy mën a ñu xool ndax mën nga ko fay wala mënoo ko fay mooy li ma leen waxoon au départ fii Sénégal la dëkku négociation la tey soo yoree redressement fiscal je crois que am ay impôt nga doon euh, euh, opérateur économique nga doon homme d'affaires ak loo mën a doon ci Sénégal da nga ko war a fay ji waaye coow li lu mu juróon yëpp ak coow li ñu ci doon wax ci rajo bi yëpp yaakaar naa ni tey ña ca nekkoon di wax ay politique la dañ leen néewal dooleeg fay nañoo fayuñu nii nangam sangam tey yaakaar naa ni ci négociation la ñu mujj te ba tey jii ñoom jàpp nañu nangu nañu dañu yoral ay redressement fiscal dinañ ko fay ci ay moratoire ginnaaw bu Mamadou Ibra Kane demee ñaanal leen jéggal loolu daal lañ leen xamal ni que daal li doxoon ci diggante Bougane Gueye Dany des médias ak waa impôt domaine daal suñu sukkandikoo fii maanaam ci benn la large tour d'horizon boo xamante ni environnement économique bi ak cadre opérationnel euh, si situation financière yi nga xamante ne jëm na ci yëpp ci wàllu média yoo xamante ne am na fii daal lépp loo xamante ne jëm na ci redressement fiscal daal gelé nañ ko pour le moment mais teewul nag gelé la ñu wax maanaam suñu nee gelé kii di directeur impôt et domaine moom moo ko biral di monsieur Niass xamal na leen que daal yore ngeen fi xaalis mais neew ñu toog ñu xool ban sorti euh, ban solution la ñuy jël pour que ngeen mën a fay seen bor ndaxte impôt yooyu mooy tax ñu fay mooy tax ñu fay policiers yi impôts yooyu mooy tax ñu fay douaniers yi impôts yooyu mooy tax ñu fay fonctionnaires yi impôts mooy delluwaat ci askan bi maanaam dëkk soo ci nekkee da nga war a fay impôt nee naa leen Paris bi ngeen di wax sénégalais bi fa nekk sax dëkk ci kër ñemewul toog ne du fay impôt ndaxte su ñu nee groupe de des médias mais jàppal ni ko Europe tey télévision bi nekk sa kër nga koy seetaan da nga koy fayal ay taxes télévision laa wax de bi nekk sa kër da nga koy fayal ay taxes waxutuma nag nga ubbi télévision liggéey di gagner ay publicité ak nu mu mënta demee rek loo ci mënta am rek da ngay waxtaan ak waa impôt nga fay maanaam impôts yi ndaxte impôts yooyu pour nga nekk un bon citoyen un bon patriote rax ci dolli aussi Bougane tey ku nekk xam na ni dafa teg mouvement gëm sa bopp bëgg a nekk président de la République du Sénégal te président tey mënoo ko bëgg a nekk pare tey ba noppi yow doo woon fay say impôts donc je crois que liñ ci mën a indi daal comme tey information mooy waa impôts et domaines jëlee nañu lépp loo xamante ni demoon na ci poursuite jëm ci des média en attendant nag Bougane ak bi dem foofu di négocier ji suñu jógee des médias ak DGID dañuy dem fële ca Golf Sud xam ngeen Golf Sud semaine bi ñu génn kii di Pastef bi fa nekk maanaam muy parti Ousmane Sonko ñi leen fa taxaloon di Mamadou Ndiaye maanaam dafa démissionné ci Pastef jàppale ni que daal Pastef s'éclate à Golf Sud kan moo éclaté Pastef foofu ca Golf Sud ndaxte ginnaaw élection municipale yi bi mu jibee ba tey gis nañu Pastef jëkk ci ay jafe-jafe ñu bëri di démissionné ñii la doonoon benn cadre Golf Sud ba mu fa nekkee daal moom daal démissionné na ànd ak kii di Lat Diop Lat Diop nag moom la président de la République ak Aliou Sall pour ñu nekk foofu ca mairie Golf Lat Diop nag ku nekk xam na ni mooy directeur LONASE nekk foofu ca cité des enseignants Lat Diop nag ku ko xam balaa muy doon maire sax gis nañu ni muy jàppalee askanam di defar foofu yu bëri kii di Mamadou Ndiaye daal nee na moom assumé na ay responsabilités bi mu ko jëlee wax na ko nee mais en tout cas mi ngi xaar xeer yi ko ciy xaar xam na ni Pastef moom soo fa nekkee ba génn préparé ci ay commentaires ay saaga ay tuuma yëpp dinañ ko teg sa kaw ndaxte ñoom ba di saaga jàpp nit ñi la ñu xam golf moom daal démissionné na dem na fekk ji kii di Lat ànd ak moom ci élection locale yi fii pour jiite mairie golf ci 23 juin 23 janvier 2022 incha allah ñu déglu kàddu Mamadou Ndiaye bi muy démissionné lan la wax. li waral jotaay bi mooy dama ñëw pour wax ni ci kanamu àdduna. ne maa ngi jàppale Lat Diop suñu frère si élection municipale yi ñu jëm muy élection municipale deux mille vingt deux di ay élection wu gox lu waral loolu yéen ñu si bëri fii gis ngeen ni Pastef bi ma nekk am na ay problème si primaire yi ñu am nu ñu boddi am nu ñu yëkkati gor nag boo ko beddee si loo xamante ni yaakaar naa moo fay ay laafa moo fay des ay duggam ba nga boole ko beddi ko yaakaar naa kooku bu dee gor gi bi waxee si mi ngi si moom dina jël décision décision bi muy jël nag décision bu ma xalaat la décision bu ma waxtaane la décision bu ma assumé la décision bi mooy lan mooy man Mamadou Ndiaye Taïba damay jàppale Lat ci si élection yi ñu jëm moo rek bamtuwaat ko incha allah rabbi jàppale boobu nag dama bëgg a leeral rek ne amul fenn fuñ ko bind amul fenn fuñ ko teg ci loo xamante ni dama naan la rokki bi rokkaan amul Lat Diop la man njaayeen laa ma toog bureau ma ko may buuram ma ko dañ njaayeen jom njóobeen ngor man sama jom may na ma ma assumé li ma doon jàppale la même bu ma ëllëg xam naa ne suba moom du ma du ma doyal mais dama koy assumé yow nag na la sa ngor may ba fi ma la jàppale fi mu toll rek nga yëg ni jàppale naa la man ak Lat loolu la wax te mën naa ko wax fii parce que du loo xamante ni secret la te bu amee dara loo xamante ni également du du loolu aussi yaakaar naa am na ñu nekk fii ñoo xamante ni mën nañ ko démentir donc man ak moom loolu la ñu wax muy choix boo xamante ni aussi dama si ànd ak moom si liggéey ndax man liggéey laa xam tey lu nga xamante ni. ñi ngi ko préparé si lu matul ñaari fan mbooloo mi ñëw feesal salle bi kon xam nga ni kooku buñ ko préparé woon si une semaine wala deux semaines kon si biti mi ngi fees dell dell dell parce que ji naa ko nit ñi tamit. ginnaaw ñoo déggandoo kàddu Mamadou Ndiaye boobu nga xamante ni la bokkoon di parti Ousmane Sonko moom bi mu génnee parti Ousmane Sonko dem jàppale ji kii di Lat Diop gis ngeen ko daal jamono ji kii di Pastef daal soo xoolee foofu ca golf éclaté wu na maanaam tasaaroo na ci ay morceaux ndaxte parti politique yu bëri dañoo tasaaroo ginnaaw loolu nag ba ñu xëyee dañu gis ni que fële ca Zik FM kii di Ahmed Aydara bu mu xëyee am ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko kàddu yooyu mairie waaye comme euh, Babacar Diagne nu mu ko waxee woon dànkaafu leen tey mënoo nekk ci langum politique bi ba pare nekk ci rajo bi di yëkkati yenn kàddu yi wala di influencer di ko teg moo tax ñu bëri di ko ñaawlu nañu déglu ci kàddu Ahmed Aïdara par noppi dellu si waat yow alaaji boo liggéeyee li ngay liggéey liggéey lu tolloog juróomi at nekk ci population bi di dàggaan seen i kàddu nekk ci biir askan wi nekk ci biir askan wi nekk ci biir askan wi ba dara des lu dul dem mairie Macky Sall wala keneen ne la seppe teg la nele teg fa ay politiciens yu fa nekkoon yoo xam ne defuñu benn résultat alaaji léegi yow lan nga war a def. xanaa xam sa bopp. xam sa bopp laa lay wax nii gëm sa bopp am fula ak fayda du defar sa liste. voilà Ablaye Dieye mii loolu la def. waaw nee na candidat la ville bu Thiès candidat la Thiès est. waaye ma toog fi naan non man maa ngi développé. Habib Daawo nekk candidat. bu baax. oui. bu baax alaaji gis nga man loo doon sama xarit sama xarit nii. waaw. fula ak fayda kenn du la ko jàngal. dëgg la. fulla ak fayda kenn du. comme Mary Teuw Niane li mu wax par force. waaw comme Mame Boye Diao li mu wax. neex naqar yi. comme Mame Mbaye Niang li mu wax. maa ànd ak ñoom. waaw ah, waaw. ba ca ba muy neex. Ah, waaw man de xoolal sama baat ni woon poto. Mhm. man. avec ou sant la yeewee avec ou sant parti politique ak ñun dawuñu juróom-ñaari at biir géejawaay. Mhm. alaaji pour nekk ay yóbbaale ma. wala pour buñ la tànnul nga naan non non ñun dañoo taxaw ngir nekk candidat rek pour muy pour la ville. waaw pour muy leer. waaw kay. ñëw nañ nag ci yeewi gi am na ñoo xam ne candidat lañ woon désister. Mhm. sant nañ leen gërëm nañ leen kilifa yi tànn ñu. Mhm. loolu sant nañ leen ca gërëm nañ leen. Ah, waaw ñoom Malick Gakou jàppale ñu sant nañ leen. gërëm nañ sant sant. waaw vraiment parce que mënoon nañ koo bañ. dégg nga li ma la waaye yow daw lu tolloog juróom-ñaari at. ñëw Macky Sall naan la noo bàyyi ñu reconduire les mêmes yu fa nekkoon. Ah. waaye yow ma ne gis nga. dañu fa nekkoon gis nañu lañ fa def. Ah. yow la ñuy doon maire yëpp yow gënoo leen a social et puis ñoom seen nekk maire sax moom alaaji ak seen social ñoom ñoom lan lañ socialé démb laa toog bañ ne yaay boo yow dafa am ko xiin xiin yi dem aslem Paris di fa mayee juróom-ñaari million mooy rako waaj waaye yow yow kooku laataa moo doon maire alaaji mës ngaa lekk cent mille francs keneen ko ñu naan may na may na marché fii mi dix millions. Ah. waaye yow kooku avant moo nekk maire dëkk seen cité des enseignants googu kan la fa mës a may cent mille francs <laughs> lekk leen bañ ma ko waxee ma ne leen waaye lekk leen. waaw prenez. prenez le xoolal sénégalais yi xamuñ ne gaa yi. lu ñu lu ñu dajalee li ñu leen defee weer wu dee. te bu doon dañoo indi seenu salaire sax ñu ne waaw. wallaahi ca seen kees la ñu jël tibb indil leen. lekk leen da leen a yey. leen lew leen. lekk leen de yéen a ko moom seen seen liggéeyu. waaye jur la de waaw waaw. lekk leen xaw ma lan mbootu la mbootaay lañ xaw ma ñaq mbootaay xaw ma. Mm-hmm. lekk leen ba suur. lekk leen ba suur. Mhm. lekk leen ba suur lekk leen balaa ñoo falu xool leen rek ba xam yeen seeni koñ jënd nañ fa ay clim ci morgue yi jàppale nañ leen soutenir nañ leen. Mhm. ba ñu yoree seen salaire bopp te nekkuñ ci état ana lañ leen def ca ASC ba ak koñ ba ak mairie ak jàkka ja ak jumaa ya. Mhm. def leen évaluation boobu. parce que fii googu ñuy wax juróomi at ci ginnaaw gàkkoo leen fa fekk nekkul dara may leen juróom benn million xaw juróomi million. mais man nekk tey directeur wala maire ñëw fa gars yi ñu naan ndeysaan moo ñu may ñetti billet màkka. Hmm. billet màkka yi ñu wote ko ci maire bi. <laughs> dossier Barth nag moom ñun duñ ci wax lu bari sax li li Seydi Gassama wax rek il faut nga nekk dof pour mën a gëm ne lii dafa tombé kese. waaw dossier Barth li muy jaas ku xalaat rek moo fi ne non xam naa dafa tombe rek. non non non tombé. foog nga foog nga nekk dof. Ah. dafa tombé. dossier wu fukki atu yàlla waxoo ca waxoo ca. ba waaj a déposé ne tey jii déposé naa mairie Ndakaaru Ndiaye Guèye Diop bu dul favori nag bokk ci favori. et puis bul fàtte ne. xalifa ko pare ne. bul fàtte mi ngi ko jugé ba daan ko. parquet bee hmm. lank moo def appel. waaw. parquet bi moo def appel. alors ñun ba léegi ñu ngi xaar. ñu ngi xaar ñu édifier ñu ci suñu fukki doom ak ñett yi ci manifestation yi. waaw kay. waaw kay. kon ñoo déggandoo kàddu yooyu nga xamante ni kii di Ahmed Aïdara yëkkati na ko di ko teg ci Lat Diop ndaxte moom Géejawaay lay xëccoo Lat Diop foofu ca golf donc ay wujj lu ñu donc ci rajo bi la taxaw commencé di expliquer ay détails yoo xamante ni amul fenn lu indi loolu ndaxte waa marché fii mi dañu amal benn entrepreneur entrepreneur bi la ñu amal benn entrepreneur lu toll ci vingt millions entrepreneur nag bu mu ñëwee foofu di réclamer xaalisam boobu kii la ko Lat Diop yëg Lat Diop bi mu ko yëkkatee yëkkati lu toll ci fukki millions may ko waa marché bi pour ñu fay entrepreneur bi en attendant jox ko ko ko avance donc Lat Diop daf ko yëkkati ci xaalisu boppam mais Ahmed Aïdara fukki millions yooyu Lat Diop yëkkati dafa mel ni daf ko déranger ndaxte moom géejawaay la nekk mouvement la yor géejawaay laa bokk su yoree dërëmam ak ñaar dërëmam da ko fay joxe mais tey mi ngi indi benn euh, genre manipulation ci population bi xamal ne nit yi ku leen jox xaalis lekk leen ndaxte bañ fi nekkee deful ni mais ba ñu demee foofu ca golf ak waa cité des enseignants boo xamante ni ni du xamante ni képp koo xamante ni am nga jafe-jafe yaa xam foo mën a dëkk ci Sénégal waxul sax ci golf maanaam soo wootee foofu nga indi sa papier mu leer na dañ lay jël en charge te kenn musu ko yëg te gis nañu jamono yi ñu génn Lat Joor mi ngi Lat Diop mi ngi def ay social yu bëri ba ci keroog euh, hôpitalu golf bi yëkkati na ambulance may leen gis nañu ba mu yoree Géejawaay football club ba tey jii ak ASC yi ku ci nekk yëkkati na ay subvention jàppale leen ba noppi Lat Diop dafa am na nekk foofu maire kii di Aïda Sow Diawara moom it nekk maire mais bi ñu tànnee kii di Lat kii di Néné Fatoumata Tall ak Aïda Sow ñoom ñëpp dañuy wax seen militants yi comme président tànn na kii di Lat te xam nañu Lat Diop est le na ñëpp rangé dem ànd ak Lat mu doon benn bañ a doon xëccoo bañ def liste parallèle loolu la Néné Fatoumata Tall def loolu la Aïda Sow Diawara def ci ginnaaw Lat mais kàddu yooyu dafa mel ni neexul kii di Ahmed Aïdara en tant que Guédiawaye la bokk indi benn fait divers mais balaa mu koy ubbi moom day xool dàqum ginaar waxaale soxlam xool li ko arrangé véhiculé waale message am boobu en tout cas jamono yi ñu toll daal muy élection ku ci nekk daal soo wóoloo sa bopp da dem defi sa gox ndaxte Lat Diop am nay seede yoo xamante ni waa golf ñoo ko ko defal képp koo xamante yaa ngi yeewoo golf yaa ngi yeewoo foofu ca cité des enseignants yaa ngi yeewoo Guédiawaye yaakaar naa ni ay ati at a nga nii chaque jour Lat Diop day def social tey jii LONASE boobu bañ ko fa tegee amul jeune boo xamante ni tey yaa ngi doon chômer nekk foofu ca cité des enseignants mënu ma nee nag 100 muy ay témoignages yoo xamante ni jeunes yu nekk cité des enseignants ñoo ko def ñoom ñoo ma ne Tange li ngay def ci sa émission people adduna bi yëpp di la dégg xamal ni ni ko daal ñun fii waa euh, cité ñu ngi ci ginnaaw Lat comme ni voté comme donc Ahmed Aïdara du moom mooy wax kuy votel kii wala kan mooy votel kële ndaxte nee nañu élection municipale élection mairie la élection mairie nag suñ ko waxee ña dëkk ca gox ba ñooy xool kan moo gën ca gox ga ñi jël ko teg ko foofu ndaxte nee naa leen du décret bi ñuy nommé maanaam ay carte la ku si nekk yaay jël sa carte te dëkk bi yaakaar naa ne jamono ji kenn mënatu fi manipuler kenn ku ci nekk da ngay xool sa intérêt fan la nekk ndaxte tey votel koo xamante ne tey dafa indi jox la dara ëllëg ak ci biir dëkkul ci gox ba dootoo ko gis et je crois que Lat Diop ñu ngi koy gis commencé film yi amee problème ba ñu ñëwee mu yëg ko mu xam ne ne que ñii kat yoral nañu entrepreneur bi toll ci vingt millions dafa yëkkati fukki millions may leen ko te ne Ahmed Aïdara nee na Lat Diop mosu fa mayee waa golf ak waa de la fa dee moom moo ko fa rey Lat muy dugg xew bu ñëpp moo leen di defal ba ci Lac de Guiers 2 si boppam na loolu donc je crois que système de la rek comme yow yaa ngi euh, yaa ngi war a jàkkaarloog ñoom Aliou Sall foofu je crois que aussi rajo bi ak télé bi c'est pour informer mais c'est pas pour intimider parce que tey Fatoumata ak Aïda Sow Diawara dañu waroon def seen liste parallèle nit ku nekk moom mooy xool lan moo ko doy mu def ko élection municipale la nekk koo xamante ni yow tamit su la neexee doo wékku ci kenn ndaxte Malick Gakou tey bi nga àndal ba mu bàyyi la foofu démb amaana bi Malick Gakou di commencé yéen ñaar am na fu ngeen jaaroon donc vaara mi ngi fi mën nañu fi indiwaat lépp mais en tout cas daal jàppale ni que daal kii di Lat Diop foofu ca Golf waa convergence émergence pour golfe ñoom ñoo njëkk a rallié wu président de la république moom la fa teg Aliou Sall moom la jox soutien Néné Fatoumata Tall moom la jox soutien kii di Aïda Sow Diawara moom la jox soutien en muy ay kaddu yoo xamante ni kii di Ahmed Aïdara yëkkati na ko mais du ci dara lu dul nga xamante ni waa marché fii mi ñoo ameel benn entrepreneur lu toll ci vingt millions boo xamante ni moo doon tabax foofu donc 20 millions yooyu ñu waroon fay Lat Diop yëkkati ci xaalisam fukki millions may ko waa marché fii mi ndaxte nee na deful ko waa marché fii mi sama gox laa ko defal ndaxte nee nañu soo dëkkee ci quartier dañuy xool lan nga defal sa kër lan nga defal sa quartier lan nga defal sa gox moo tax mu def loolu mais du question ni que tey da ngay utiliser sa rajo rek wala sa télé wala si benn émission boo xamante ni waxul politique wala waxul lu jëm ci loolu nga bëgg a véhiculer benn message pour intimider en tout cas li may wax rek ñu ngi jëm ca ay élection locale ku ci nekk na nga yeewu ubbi sa bët xool ki la doy xool ki la doy ak kan moo la mën a jëriñ parce que am na ñoo ci xamante ni ay intérêt personnel moo leen yëkkati am na ñoo ci xamante ni tey suñu bokkul fii ngay wax fële sax da ngay am problème donc euh, mu doonoon ay kàddu yoo xamante ni Ahmed Aïdara yëkkati woon na ko ci émission tësam bi aljuma bi ñu génn ginnaaw loolu nag euh, réaction yi di jógee partout donc euh, si la ñu xamalee ni que li tax Lat Diop def loolu ak du ñi lu tax ñu topp Lat Diop ndaxte Lat dafa yàgg def social foofu ca cité des enseignants foofu ca golf ak Géejawaay. ay waay man waay ay waay man waay ay waay